tey amul lu ñuy seral musulman yi chrétiens yi yahud yeeg ñëpp. yahud yan yahud yeeg juif yi lépp am na fi parcelle. waaw. Moodu nag mooy dajale ku ne. waaw kookoy mo kookoy Monduloo du Monduloo de Monduloo. Monduloo mais the world is law everything is law be for law. tey boo ko doon jox ay conseil si bis bu am solo bi nga xam ne parcelle moo ko soxla tey lan nga koy wax ci bés bi. tey Moodu dama bëgg mu yëg boppam yëg waa parcelle waa parcelle ñun ñëpp ñu mbooloo doon bool mooy doon benn parce non fépp fu mu amee rek ñëpp doon benn àndandoo doon benn say dañuy am ndam. mais seen adversaire pare na de. sunu adversaire ñoo gën a pare fuuf. ma la sëm waaye ñun bu ñu paree du tey. gisoo forme bu garaaw bi mu yor. day xànj dóorkat la. dóorkat la dóorkat la mooy. ki dem ki dem France Snep sa entraîné trois mois. bu demoon seet sax ma barre mais France dëkku féeg yooyu. waaye dëkku féeg yooyu yow waaye. no we didn't know. Não, não Seuss dana ma rey nga ni France dëkk fekk.